mettre jërëjëf nawle comme ni ñu tàmm di woon te man ak yow te après dinaa ñëw ci li nga xam ne ni moom mooy le mot nawle muy lu ñu fonk man ak yow euh, di nuyu également ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci jataay bi tey moo xam ñi ñu nekkandool fii toog waaye itam suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy euh, journaliste si ñu lool ñuy ut si li nga xam ne moom mooy information jógee ci li nga xam ne moom mooy front bi nga xam ne tey jii euh, la am euh, taxawaay ba tax na euh, Guy Marius Sagna cant ak ngërëm dina la ñeel xam nga lu tax léegi li nga wax dama ne su ma toogoon léegi rek loolu lay wax amoo leen pour ñu gërëm leen amoo leen pour ñu sant leen parce que comme ni nga ko waxee ndawal réew mi ngeen moo xam jiite réew mi ba ci suuf ñi nekk ci institution yi képp koo xam ne nii rek surtout ci yéen ñi nga xam ne askanu Sénégal ñoom ñoo voté pour ngeen toog ci place bi tey ku ci nekk ci yéen rek da am loo waroo ak sénégalais yi moo tax lii nga wax dama ci ànd ak yow ndawal Sénégal nag moo gën a wóor parce que bari na ci ñu mel ni yow ñoo xam ne nanguwuñu tey li nga nangu mooy nanguwuñu ne ay ndawal Sénégal lañu nanguwuñ ne fañ dem tey ci pencum ndaw réew yi di dagaan wala sax di waxal askan wi askan wee leen fa teg kon tey boo ko nangoo dañu naan cantan ak ngërëm ñeel na la parce que lii ñu li tax ñu koy def mooy ñaax sa yeneen moroom yi wan leen ne leen député bi ci ginnaaw askan wi waaye tam ci kanamu askan wi la war a ne tey jii askan wi génnee di naan lacrymogène ñoom député yi ñoo ci war a jiitu su fekkee ni ay gor képp lañu te xam ne li leen fa yóbbu askan wi askan wee tax ci loolu aussi sama ay wax nag dama koy accentuer ci ñetti mbir mooy ci ñun les chroniqueurs les journalistes les hommes et femmes de médias mais aussi wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal wax aussi ñi nga xam ne nii ñoom ñoom ñoo bëgg dëgg ci àdduna wërngal këpp tey duñu ay sénégalais may jiite jiital ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy taskatu xibaar yi yéen taskatu xibaar yi seeni ay mbokk tey jii ñoom ñoo toog tëral lii tey di front bi tey jii nag ñoom ñoo leen di woo buntu bi tëjuwul ci kenn dañ koo ibbil ñëpp képp koo xam ne taskatu xibaar nga ak foo mënti féete xamal ni ci lii danga cee bokk kenn beddiwul kenn dañoo bëgg a àndandoo doon benn say daal di libérer le peuple démocratie dellu ca fa mu nekkoon fii ci biir Sénégal te xam nañu ne bu ñu nee taskatu xibaar war nañu ko mën ci bu ñu boolee suñu ay doole moo tax bu kenn bedd kenn sànq guy wax na ko tey ñu ngi dem ci terrain bi ne dañuy liggéey ndax ñan këru média yi ñuy liggéeyee mais tey ñun ñooy dund lu metti ana ab sa aan barki démb ana keneen ak keneen mais du yéen a ngi gis ay nit la ñuy rey ay doomi aadama comme yéen ay sénégalais comme yéen la ñuy tiire ay balu fetal ñu daanu maara day taali kenn ñaanu ko suñu borom yàlla bu ko yàlla def te yàlla bu ñu dund lu ñu mel mais jël seen bopp ngeen teg ci ñooñu tey daanu martyr yooyu bu leen jàpp ne rek seen caméra yii ngeen yor da leen a sauvé bu leen jàpp ne seen live yi ngeen def da leen a bu leen jàpp li nga xam ne tey ji moom mooy seen euh, gilet de presse yi da leen a sauvé déedéet sauvé wu ndax ñu ngi leen di maltraité ci ci ci terrain bi te suñu yàggee suñu bàyyee noonu bu yàggee li ci des moom mooy def leen comme ni def tey ji martyr yi te ñaanuñu ko suñu borom yàlla kon nañ leen jóg taxaw àndandoo ñoo bokk benn lu ñu bëgg moom mooy Sénégal am jàmm ki ñu ne dictateur la dafa toog pour di dicter sénégalais yi te lool xam nañ ne sunu maam yi dañ ko doon bañ ba heure bi nañu àndandoo di ko bañ te yàlla képp tax te su ma nee Salma nawle mu ne ma nawle dañoo ànd ñun ñaar ci ànd gor ak nawle kenn du sàq man ak moom ànd gor ak nawle boobu nag buñ nee pacte dañ naan ñi fi tubaab la mais dañu koy wax ci olof mooy dañoo ànd ànd gor ak nawle ànd boo xam ne nii dara duñu tàqale ànd boo xam ne nii dañuy muñëlante waaye ànd boo xam ne nii mooy du suñuy doom a tax du suñuy borom kër a tax du keneen a tax askanu Sénégal moo tax parce que kenn ñu cee génne loolu nag buñ ko dee wax dañu ne soo ne diw damay ànd ak yow nee ko nañu ànd ànd gor ak nawle te loolu noonu ñu def tey moom la sunu mag yi fekke tey moom la sunu góor ñi fekke tey moom la ñu ne loolu ngeen di woote dëgg rek la ak fulla en commençant par par biram Birame Serigne Saliou Gueye Cheikh Bara Ndiaye ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci biir panel bi ñu koy waxtaane ci dëgg ak fulla loolu nag tey buñ ko taxawalee dañ ci jiital tamit askanu Sénégal bi nga xam ne yéen lañu ne dañoo toogoon ay at di leen servir ku ci nekk ku deful dix ans def na plus de dix ans ci télé wala ci rajo yàgg leen a servir toogoon di wax ci dëgg ak fulla toogoon di yeete ci lan moo am ci information yi tukkee ci nguurug Sénégal jëm ci askanu Sénégal ñu leen di woo boobu ba tey mais nag woote bi dootul yem ci derrière les caméras ci ay télévision ci ay live ak yeneen ak yeneen oote bi dafay jéggi foofu te bu fa jéggee dañuy dindi suñu kasketu ay journaliste chronique chroniqueuse mooy dañuy doon ay sénégalais ay dëgg-dëgg sénégalais yu bëgg dëgg bëgg a taxawal dëgg te bëgg a taxawal dëgg bokk na ci ne 12 ans yi nga xam ne régime bii mi ngi fi deful fulla waxul fulla deful dëgg waxul dëgg askanu Sénégal ñoom ñooy ñi xiif ñoom ñooy ñi mar ñoom la ñuy euh, euh, xañ seen ak ak seen yelleef ñoom la ñuy noot ñoom la ñuy dëggaate ci askan woowu la ñuy jël ñi nga xam ne ñoom ñooy ay frustré ci askan woowu la ñuy gis ñi nga xam ne dañ leen di faat xamuñu woon bal ci bopp wala bal ci dënn nit ki dee xamuñu ko woon ci film yi lañ ko daan gis tey askanu Sénégal ñoo koy dund pourquoi pas am ñoo xam ne dañoo jóg ne dañuy bañ loolu pourquoi pas am ñoo xam ne dañoo bëgg li ñu doon dundee ëllëg ak gannaaw ëllëg ñu dellu ci mooy ngor jom fulla fayda te du benn Macky moo ñu koy xañ du benn Macky mi nga xam ne après indépendance la ñuy wax ci la juddu ci la ñëw ci la jiite askanu Sénégal du kooku moom moo ñu koy xañ mani ne nañu dëggal sunu bopp nañu jaar ci woon wi ñu war a jaar bu ñu am lenn lu ñuy rus bu ñu am lenn lu ñuy sédd parce que ki ñu ko séqal séddul rusul te nee naa leen jamono yii ñu nekk nii dina neex pour nit xeex moo tax kenn war tarakal xam lu tax il est dans l'impasse fi mu nekk nii moom mooy mbëkk miir bi wala mu fekk suñu fi mu nekk nii moom moo war a saraxu moom moo war ne na leen ànd kon jëme ci li ngeen bëgg mais du ñun ñoo koy saraxu wala ñu koy ñaan foofu lañ toll ak moom su demee bay wax ay dialogue amnistie ak yeneen lool moom la engagé xam nga lan la war a def ba bëggee génne ay détenus politique su bëggee askan wi am jàmm ak yeneen ak yeneen nan ne nañ leen dem élection le vingt cinq février waxatuñ le 2 avril le cinq février et mën naa ne xam lu tax jël nañu ay milliards soo demoon tey jii euh, fële nga xam ne ni moom mooy Sénat CDC fépp foo mënti dem alal ji nga xam ne jël yëkkati woon nañ ko pour def ci fi nga xam ne moom mooy élection yi pare na alal jooju mi ngi tege. préparé nañ lépp pourquoi pas duñ dem élection le vingt cinq février xol yi féex nit ñi am jàmm Sénégal judduwaat alternance am ndax mënatu fee toog keneen ku bëgg a jiite ku sénégalais yi wóolu ñu jox la Sénégal toog di la xool nag ak bët yoo xam ne nii mooy bëtu boo defee ñu jóg loolu moo fi des te loolu nag mooy action sur action comme wax nañu tey action sur action amatul taxaw xaar beneen kuréel bu juddu beneen keneen ku am beneen gis-gis ñëwal ñu àndandoo booloo te loolu kenn du ko commandé ku dem ñu dem ku demul ñu dem incha allahu rabbi te yàlla rek lañ ciy àndal bu soobee na nabil Moustapha dinañu réussir lu ñu bëgg a def te benn Macky Sall du ñu téye incha allahu rabbi te na ci ñëpp jàpp yéen sénégalais yi yéen la ñuy wax li ñuy xeex du pour ñun du pour le maisons de de euh, de presse du pour les institutions du pour keneen ak keneen ak keneen nañ leen taxaw nañ leen jàkkaarloo Macky Sall nañ leen nangu li ñu moom suñu démocratie dootuñu ko kemaat ne dañ koy foqat ci ay loxoom parce que reporter ay élection ci daaneel suñu démocratie la nekk ci la bokk te président Macky Sall ban fi nekkee ba tey jii démocratie bi day gën a wat rek fii ci àdduna bi leen na nag mën nañ koo def mooy taxaw temm ci moom mii nga xam ne tey jii doomu réew mi la moo jiite Sénégal bu ñu taxawee ak moom jàpp jàmmarloo ak moom fokkati suñu démocratie keneen dootuñu ñeme adduna laay wax keneen dootuñu ñeme muy tubaab bi muy baa muy kummanti doon keneen dootuñu ñeme ba lii nga xam ne ni moom la ñu warloo mooy téye suñu ay ressources téye leneen ak leneen ak leneen kenn dootuñu ñeme suñu defee defee li ñu def ak mag Sall keneen dootuñu ñeme pour ñu pour duñu dugg te loolu jàpp na sëkk fi mu nekk nii dafa reporter élection le 25 février dañoo bëgg a dem ci ay élection ci jàmm ak salaam ci nu mu gën a gaawe incha allahu rabbi te nee naa leen ségam ñun ñii ñoo ci nekk action rek action rek te action yi day ñëw ci kaw boppam tax gëm nañu lool incha allahu rabbi jërë ngeen jëf wax ji dëgër na waaye maa ngi ciy jéggalu nii rek la mën a demee parce que nit li nekk ci xolam rek la mën a génne jërë ngeen jëf a la jaajëfal bu baax moom Coro Maxu Mandela yaakaar naa du ku ñuy présenté comme ni ma ko waxee léegi moom jàppoon nañ ko kaso ci bi mu mbokk yi nuyu naa leen nga lenn rek dafa jar xeex Macky Sall di farata mooy lépp lu taxaw ci réew mi di keno maanaam doon réew mi li aju ci culture ci diineem ay kilifaam lépp la màbbal kuy meree wala nga am lu la naqari bay tëkku boo ko ñemee bu ko jëmee kenn jëmee ko Macky Sall moo ñëw ci dëkk bi traité nit ñi suñu kilifa yi de ay citoyen comme tout le monde daf leen a mujj def ay sous citoyen parce que kenn mësta dégg lu la naqari ci sa njaboot kenn mësta dégg lu la naqari waaye nag daam lu boolof wax li banki woom bankutum xel waxin la faaw ñu dégg ma bu baax a baax suñ sañoon liñ fi jàmbat lépp suñu ay kilifaa koy dox dese sag bi waaye li xew gis ngeen ko tey jii ñañu jàppe woon ay escroc ñoom la ñuy naan ñooy dox mbir mi ma am wegeel bu rëy nag ci ñoom parce que ñi ngi jël seen responsabilité fiñ ko war a jëlee sëñ Fallou Mbacké am lu mu waxoon mais kilifa war naa jomb yaakaaru njabootam di ko jéggi man aw lu mooy wax ak Macky Sall citoyen yi laay waxal ñi nga xam ne ñi ngi war a jël seen responsabilité ndax réew mii di Sénégal dañ ko ànd bokk ñun ñëpp troxal bu ne toroxal nañ ko fi nit Salma wax na ko léegi man damaa yegg si tribunal doon jël si sama benn xarit cuun mu ne ma coro la ñuy yóbbu mi ngi noonu mu jëm police quatrième ma ne ko xam naa borom këram sax dafa yaakaaroon ne police wu parce que ñun sénégalais yi police dañoo rëtal dañoo ragal loo ba maanaam yow boo fa doon wuti këyit sax doo ko fa bëgg ñoom war nañoo wàññi seen gàllaaj ñu jam leen ah la police dinaa ñëw ci loolu parce que problème bi mooy bavir yi nga fii gis yëpp ñoom ñoo koy def sanguma la gendarmerie wala dara mais ku xool daanaka yëf yi reewande yi am ci manifestation di këpp ci ëpp ñoom d'ailleurs li xew léegi bi yàggul ñoom képp ngay gis ñoo fa dóor jigéen ñoo jàpp journaliste ñoom la journaliste tubaab taxaw ñu koy tàpp tàppal ba naan ñoo fekk ab way laagu tuur puus-puusam toroxal ko ñoom it ñoo sàggan ba ñu jël recritement boo xam ne ñu ngi leen tàggatee ri ba noppi gendarmerie bañ leen a jël ñoom ñu nangu muy dugg seen koor faw ñoom ñu assenir seen milieu boobu parce que réew mi ñu ñoo ko bokk te kenn tu fi kenn nit ñi dañ la jar li may wax léegi li tax ma koy wax bi ma demee plateau ñu topp suma ginnaaw maxu ak parce que loolu dafa dafa jara teg baaram parce que ci réew mi la xewe te am na ñoo xam ne fekke wuñu ko te fekke muccwul man maa fekke bi ma jubalee police plateau borom këram sax xamuloon ban police la dafa yaakaar police quartier parce que ñun dañoo ragal police wala nit ñi dañ ko kii woon ñu yegg plateau man maa njëkk a yegg si bi ma ñëwee ni ma ko fekkee man maa gaare sama moto parce que moto laa yor dem di diis yaade borom këram pour bañ mu gaaw a yegg si gis melokaan ki nga xam ne moo ko indi muy agent euh, pénitencier bi téléphone am ci noppam mi ngi wax maay dégg lii yëpp waxoon naa kon loolu dara neexu ko ci sama kanam luñ ne ma xew na fa du ma ko weddi man moo tax bi ñu taxawee daje fu di ñaanal euh, coro la woon yaakaar ak Cheikh Baara yu ma ne leen ku xool jigéen bu wann lor ba ca nopp ya toroxale ko nii du man maa lay ñaan kii du ku ñuy ñaan xam nga kii lan mooy mbiram taxawaay la laaj montré na ay limitam kilifa du wax muy dañ ñaata yoon la wax muy dañ kilifa du déggee rendez-vous di ko faussé ñaata yoon la ñu jox dig daje ba pare faussé ko d'ailleurs yaakaar naa yonent bi am na lu mu ci wax ci ñetti yi nga xam ne maanaam ngeen ko gisee jàpp leen na munaafiqun la ku ci am benn rek mën nga ko wax kon problème bi mooy li may wax mooy bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi naan su ma fekkee woon démb bi yonent bi xeex ma nekk ci ginnaawam doon saxaaba fekkee lii xew nii Sénégal parce que kenn ku nekk nag da ngay fexe doon sa doomi jamono mais pas rek waaw yonent bi nangam nangam xëlëf xëlëf yi lu la neex nga daal de da ngay daanu te alors que jikkoom yow fas yéene woo ko yor fas yéene woo doonam Omar soo yoon su ma ko fekkee damay taxaw xeex dëgg ànd ak moom soo ko fekkoon ci munaafiqun ni ngay bokk parce que foofu yéefari ñoo amoon saxaaba yi ak naafiq te jàpp naa ne xaj na doo nekk ci fir mais au moins ci naaw fekk yi ngay bokk ku ne woon bu ma fekke woon jamonoy Lat Joor bokk ci ñiy topp ci ginnaaw jaam ngay ne ku ne ma fekke woon jamonoy sëñ Tuubaa taxaw di bañit parce que ànd ak sëñ Bàmba nag yombul woon gars yi duñu woon ay xuusma ñàpp kon li fi des xam nga lan la kenn ku nekk fexee dugg ci histoire suñu ñaari soxna yi nga xam ne ñoom la xalaat bi jóge ci ñoom xam nga mbir bu amee nit ku nekk ak ni nga koy désert digérer am na ñoo xam ne danañ gaaw a jànnaxe am na ñoo xam ne danañ def lii ba bëgg a def lii heureusement biñu amee ay càmmin yu mat càmmin tel que Cheikh Bara Ndiaye maam Biram Waaj ñu ne leen defee leen nii defe leen nii bu leen defee nii ba tey mu jur lii muy lu yaatu nag waaye li ñuy bañ rek te loolu njortuma ko fii mais mooy wax mooy teg kuréel ba pare di disiyaade jàmbaar ñi nga xam ne ñooy bañ mooy li fi am démb layaam layaam ba pare nañu xool ñi ñuy dugal seen kuréel yi parce que man ma gisee koo xam ne nee nañ mairie point e la nekkoon nekkate mi ngi ci biir aar suñu élection man dama am problème ma ne ñii ñoom ñoo ñu anéantir heureusement bañ ko comprendre ci taxawaayu jàmbaar ji bu ñu dem marché aslem ba Babacar maa ngi dalal sa xel ñun ñaa ñun waa Diomaye président xaw ma ku campagne waaye ñun ñi ngi campagne ñi ngi dem séddale suñuy spécimen te bi alkaat yi ñëwee liggéey di wax man démb laay affaire yi gën ma wóor ñoo xam ne boo leen xoolee duñ la jox sax ne ñi ay alkaati lañ ba pare ñu tëni taxaw armé seen ay kii bëgg a sànn askan wee taxaw bañ kon leader yi nañuy def lu leer rek askanu Sénégal fi ne nii nee nañ jar xam nga di nax koo xam ne nii sax dafa naxu mën naa mën naa yomb mais dem ba nit ñi ne jar nga bëgg leen a nax jaay doole koo ëpp doole pesum kanam borom koy fajal boppam na nit ñi waaji wàcc campagne yàgg nañ fee wor tamit ay organisation man dama wax sëñ Babacar mii ne ko ak ànd sàmm jikko koy moo dal kilifa yu bëri parce que fii lañ dégg kilifa gu toog ministre de l'intérieur wan ko ci ngóor jigéen gi ne nangam ak nangam ñoom Babacar sax loolu inspiré leen ñu dem ñun ñëpp ñu ne leen ñu ngi leen di jàppale ñu demee di dox ànd sàmm jikko koy seen ay élément de langage yi génn ne waa sàmm jikko yi waxuñ dëgg kilifa yi yónni leen te doo gis kenn ku bokk ci kilifa ku wax ne wala ku ñëw ne ah kilifa yee leen yónni wala man maa leen yónni y'a problème réew mi c'est du grand n'importe quoi faaw ñu régler jërëjëf ñun ñu xaw a yàkkamti rek daanaka moo euh,